alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu leen di nuyu di leen ziara bu baax di leen euh, fàttali li nga xam ne mooy suñu waxtaanu tey li jëm ci wàllu pajum cosaan li nga xam ne àddina bi yëpp tey nangu nañ ko mu nekk mbir moo xam ne mbir mu am solo la ci wàllu wér-gi-yaramu doomu aadama te mu nekk paj moo xam ne euh, paj muy wéral la paj na moo xam ne muy dimbale doomu aadama ci wàllu wér-gi-yaramam Euh, tey waxtaan wi nekk ci lu jëm ci wàllu hémorroïde ak ndoxum siti ak wàllu néegu sëy li nga xam ne mooy may nit doole ci wàllu sëyam loolu tax na tey ñu toog pour fas seddoo seddoog yéen li nga xam ne mooy suñu xalaat ci wàllu loolu euh, ñun ñu nekk ay nit ñoo nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllum fajum cosaan man maa ngi tudd seex Omar Diop dëkk fii ci cité Aline Sow ci golf bi nga xam ne booy dem boori Guédiawaye boo ñëwee ba ci cité bi ci wetu jumaa ji euh, villa 652 mooy numéro kër gi ma nekk faj nekk ci di yëngatu ci wàllum fajum cosaan yàlla dogal ñu am ci expérience def nañ ci daanaka léegi tey ñaar fukki at euh, du ci yëngatu faj ci lu ne def ci lu ne tey bu ngeen ma laajee ci lu jëm ci wàllu hémorroïde ndax lu nit mën a faj la ba mu wér wala lu nit di faj ba mu calmer la wala lu nit di faj la ba mu tane man loolu yàlla dana dogal na am nañ ci xam-xam am nañ ci expérience boo xam ne euh, daanaka dimbali nañ ci ay jaami yàlla yu ne wàllu hémorroïde nag façon hémorroïde bu nekk man gis naa ko te façon hémorroïde bu nekk man faj naa ko nit ñi am na ci ñoo xam ne seen hémorroïde dina egg ci melokaan boo xam ne bu ñuy ñëw duñ mën a toog ndax métti ak li nga xam ne coono bu ñuy nekkee la nga xam ne dañuy ñëw seen tubéy yi day tooy di taas di am deret am na ci ñoo xam ne seen biir yi dañuy ëfu am ngelaw ba nga xam ne tey bu ñu lekkee ñu mën a rees du mën a rees duñ mën a nelaw dañuy mel ni seen biir yi dañ koo pomp am na ci ñoo xam ne seen hémorroïde bi dafay nekk loo xam ne euh, bu ñuy dem di cabinet wala ñu dem toilette ngeen baal ma ci kàddu gi euh, dafay dafay métti méttiwaay boo xam ne bu ñu xoolee ci suuf bu ñu gannaaw bu ñu demee toilette ba pare da ngay gis mu nekk de day muy xonq nga xam ne kii dafa génne deret am na ñoo xam ne nag seen wàllu hémorroïde dafay dem ba nga xam ne deret ji day sotteeku sotteeku bu méttee méttee méttee méttee te loolu yëpp lu ko indi mooy nga am jàngoro ji ba pare ta mënoo koo faj wala gisoo ko la ci dimbale. moo tax tawat yooyu yëpp yàlla dogal ci ñun ñu di ko faj am ci xam-xam am ci expérience yàgg ci torop nag nga xam ne te ñu ay ndono ndono la ci ñun waaye it dañ ko dañ ciy gëstu euh, yaatal ci suñu gëstu yàgg ci nag yàgg ci dimbale doomu aadama yi moo tax xeet gu mel noonu muy li ñuy wax picc kajoor nga xam ne nit ki day dem te gannaaw kër gis ci suufam am picc bu génne ci ronom loolu ñu bëri am nañ ko waaye xamuñ lañ moo ko waral lekk yi nga xam ne doomu aadama yi ñu ngi koy faral di lekk ci jamono ji ñu waral na tax nit ñi seen daañ seen wér-gi-yaram demeetut noonu moo waral nit ñi am coono bu métti ci wàllu façon yi wéridi yu mel noonu mu nekk tawat joo xam ne tawat bu metti la boo xam ne dina jaxase xelam doomu aadama dana néewal xalaatam da nga gis ñoo xam ne sax dinañ nekk ay nit ñuy fàtte te daawuñu fàtte te lu ko sabab mooy euh, jàngare kajoor jooju nga xam ne moo nekk ci seen biir di leen fitnaal di leen sonal jàngaro jooju jàngaro joo xam ne képp kum dal li may lay digal te di la ko ñaax di la ko fàttali mooy gaawal faj ko rek ba teqali ko moom soo ko defut dana la lor dana la lor si sa wàllu xel dina la lor si sa wàllu wërsëg dana la lor si sa wàllu wér-gu-yaram te dina la lor si sa wàllu néegu sëy bëri na ñuy tawat ci am wàllu jafe-jafe si seen néegu sëy tawat jooju moo leen ko indil mu des li nga xam ne mooy li ñuy wax ndoxum siti ndoxum siti nag nekk baat boo xam ne baatub cosaan bi mooy toppam sët ya ndox euh, jàngoro la joo xam ne mooy ndey jàngoro yi bëri na lu nit ñi di gis seen yaram li ñuy wax ndoxum siti moo leen ko teg mu nekk jàngoro joo xam ne fu nekk la ko nit mën a jëlee waaye nag daanaka mën nañu wax ne doo ndoxum jàngoro jooju ku ko amul rek dañuy wax ne ngaana ngay nekk bu moo tax ji euh, jàngoro ji euh, nit ñi dinañ ko am ñii dana nëbbu ci ñoom ñii dana feeñ ci ñoom da nga gis koo xam ne yaramam bu sangoo day xasanu xasanu bu méttee méttee métti nga xam ne bu naaj bi tàngee am na ñoo xam ne bu ñu ñaqee rek su naaj yu tàngee rek nga gis ñu commencé xasanu am na ñoo xam ne bu seddaay bi seddee lool nga gis ñu commencé xasan am na ñoo xam ne bu ñu sangoo njàmpe dañuy xasan am na ñoo xam ne da ngay gis seen bopp yi da am karaas wala nga gis ñu am ay xam wala nga gis ñu am ay picc ci seen yaram am na ñuy am picc kanam picc kanam yoo xam ne picc yu rëy rëy rëy lay nekk ñooñu picc yooyu ngay gis loolu waal loolu yépp ci xeetu ndoxam siti la bokk ak ñi nga xam ne seen diggante baaraami tànk yi day am lu weex lu weex loolu ngay gis ci diggante baaraami tànk yi ñu koy wax pied d'athlète ci tubaab yi nasaraan si di ko wax pied d'athlète nga xam ne ñàkk xam-xam ak ñàkk xam ñàkk cee am xam moo waral ñu tuddee ko loolu waaye jàngoro jooju jàngoro yu fajum cosaan la moo ko mën a faj mooy li ñuy wax ndoxum siti mooy toppam siti jàngoro jooju nag nga xam ne comme ci dal day gis ay ay wey du am na ñoo xam ne seen ay karaw day ruus di dagg am ñoo xam ne seen bët yi dañuy xonq cor am na ñoo xam ne seen euh, diggéen gémmiñ day am li ñuy wax euh, gémmiñu picc nga xam ne bu ñuy wax seen gémmiñ yi diggante yi day am purit wala muy am yu weex loolu loolu yëpp ci xeeti ndoxum siti yi la bokk am na ñoo xam ne seen wàllu yaram da ngay gis euh, yaram wi day am ay parti bii ñuul fii xees loolu yëpp da nga koy gis nit xam ne loolu yëpp jàngoro yi ndoxum siti moo ko waral am na ñoo xam ne nag seen ndoxum siti mi da leen di sonal sonal sonal seen karaw yi di dagg seen yi di ruus loolu yëpp ci xeetu ndoxum siti la bokk moo tax it jàngoro jooju yàlla may nañu ci tawfiix su ne nii li ngay gis ni am na ci xeeti jàngoro yu bëri yoo xam ne nit nañ mu leen dal euh, tubaab bi mënu ci amu ci amu ci xam-xam mënu ko faj loolu yépp ci xeeti ndoxum siti yi la bokk moo tax tey fi mu ne nii nga gis euh, doomu aadama yi am na ñu bëri ñu ne ci coono ci wàllu wér wér di bañ demee hôpital bu ñu xoolee duñ gis dara te ñàkk gis dara googu yépp nga gis ndoxum siti moo ko indi am nañu am tension tension bu métti bu leen di sonal mooy hypertension lañ koy wax xaw ma hypertension googu euh, bu fekkee dal nit ki ndoxum siti bu yéeg bu bari dana ko ko waral am na ñoo xam ne seen bopp dañuy riir seen nopp yi di riir ndoxum siti moo leen ko teg ndoxum siti mu yéeg moo leen ko teg am ñoo xam ne seen bët yi dafay dem ba lëndëm gis-gis bi dootu demeeti noonu ndoxum siti bi moo leen ko teg am na ñoo xam ne seen wàllu jabet jabetuñu seen suukar ak seen ndoxum siti mooy booloo yéeg bu ko defee nga gis ñoom ñu am ja ñu am jabet seen suukar di yéeg nga gis ñuy jeex wala ñu am yenn jafe-jafe difficulté yi yooyu yëpp dafa jaxasoo wàllu ndoxum siti koo xam ne am nga jabet man soo dikkee bu ma la traité incha allah yàlla dina la may bu dee type 2 bi da wér clé su dee type 1 bi la bépp jafe-jafe boo ci mos am moo xam jeexaay la wala néew kàttan la wala ji euh, euh, saw mu bëri wala ñàkk nelaw yooyu yëpp incha allah garab dana ko faj ndax am nañ ci xeeti garab yu ne waaye wàllum ndoxum siti moomu ma lay wax nga xam ne ñu bëri néew nañ kàttan ci sëy ñu bëri ñu ngi am problème jafe-jafe ci wàllu amam doom am na jigéen ñu bari ñoo xam ne tey fi nit ñi am am nañ jafe-jafe ci wàllu doom am na ñoo xam ne seen wàllu règle yi dafa am kii mooy loolu régal nga xam ne euh, mbaax la mbaax bu dee ci wolof dañ koy wax mbaax nga xam ne weer wu nekk dañ koy gis ci seen bopp ñu bëri tey am nañ ci ay jafe-jafe loolu moom moo leen indi muy ndoxum siti moomu am na ñoo xam ne dañoo am problème mu euh, li nga xam ne mooy bu ñuy gis mbaax muy métti métti bu métti bu tara tara tara loolu wàllu ndoxum siti bokk na ci li nga xam ne moom moo koy teg nit ki am na ñoo xam ne dañu am jafe-jafe ci wàllu ay yax Euh, tubaab bi di ko wax arthrose wala ñu koy wax euh, euh, rhumatisme mooy mu sedd loolu yëpp ndoxu siti moo ko teg nit ki yàlla dogal na am nañ ci saafara su baax a baax a a baax garab yu baax a baax a baax boo xam ne soo ko naanee yax yi métti ci yow sa digg ginnaaw bi wala sa óom yi wala sa baat bi wala sa tànke sa loxo yi yooyu yëpp boo naanee garab gi daf koy dindi ba mu set wecc képp koo xam ne yàlla dogal na ci yow nga am jafe yooyu ma fi lim yëpp yàlla dogal na am nañ saafara si tawat yooyu yëpp yàlla dogal na am nañ saafara si ku fi ñëw rek incha allah wala nga ko ak ñun danañ la dimbale ba nga mën a taw sa tawat jooju mën a teqalikoo ak yow garab yi nag garab la yoo xam ne garab yu baax la nag garab yi cosaan la am na ci yenn tawat garab yi cosaan rek moo ko mën a faj koo la mën a yebal ci feneen fu dul garab yi cosaan daf lay sonal di nga dépenser sa sa alal te doo ci am benn yëg njëriñ lu léegi boo demee nag ci wàllu wàllu sëy yi nga xam ne mooy néegu sëy yi nga xam ne euh, léegoo nga gis ku góor koo xam ne dafay ànd ak soxnaam léegoo-léeg mu am jafe-jafe ci wàllu yàggaay ci ànd ak soxnaam nga xam ne bu commencé ànd ak soxnaam rek du yàgg dara nga gis mu daal di ci pare euh, ñu koy wax daanu ci baat bi ngeen jégal ma am ñoo tubaab bi di ko wax éjaculation précoce waaw mooy sëy xam ne borom buy ànd ak soxnaam du ci yàgg loolu am nañ saafara su baax soo xam ne boo ko naanee rek dafay dëñ ci waxtu wu nekk dafay dafay dëñ ak nu mu mënti am ci ñoo xam ne seen wàllu euh, euh, sëy seen duñ am kàttan bu dëgër boo xam ne dana mën a dimbale soxna si ba mu yëg bànneex bi mu war a yëg dëgg-dëgg loolu am nañ ci saafara am na ci ñoo xam ne yàlla day dogal ñoom seen ay soxna du ñu yëg bànneex loolu am nañ ci saafara jigéen di nga xam ne dafay ànd ak borom këram nga xam ne buy ànd ak moom day metti rek loolu am nañ saafara si nga xam ne bu ko jigéen ci naanee loolu dafay dëñ ba set wecc ci moom su fekkee ne nag wàllu ko góor ki la nga xam ne xolam wala xelam dafa nekk ci yeneen mbir ba xam ne bu gisee soxnaam sax xelam dootu nekk ci moom jafe-jafe boobu la am nga xam ne wàll wàllu néegu sëy xelam nekku ci du sëy ak soxnaam wala bu sëy ak soxnaam tamit day forcé rek dem ci soxna si ngir bañ koo lor waaye loolu loolu nga gis noonu loolu jàngoro la joo xam ne dina dab nit te loolu kum ci dal rek incha allah am nañ saafara si boo ñëwee buñ la joxee suñu ay garab soo ko naanee dana dañ nit ki nga xam ne nag wàllu kàttanam dafa des ci wàllu sëy nga xam ne du am kàttan bu baax dëgg dëgg dëgg xam nga góor buñ koy wax buñ koy wax mooy sëy tey nga ngay sëy am kàttan lu wér nga xam ne ku soo àndee sa soxna soo paree rek xolam sedd ci yow ba nga xam ne dina xam ne yow mii lim soxla ci boppam jox nga ko loolu tamit ñu bëri am nañ jafe-jafe boobu jafe-jafe boobu am nañ saafara si nga xam ne moo koy dindi ci nit ki su dee góor la bu dee jigéen la am na ci jigéen ñoo xam ne seen dund nañ ba am ay doom mosu ñu xam bànneexu sëñ loolu feebar la jàngoro la bu ko nit ki amee incha allah bu dikkee ci ñun danañ ko dimbale ba dañ ci moom ba set wecci jigéen ñi nga xam ne dafa ci wàllu am doom nga xam ne mënta ëmb day sëy mënta am doom yàlla dogal na am nañ saafara soosu nga xam ne soo ko soo ko rek boo ko jëfandikoo incha allah yàlla dana la teqalil loolu moo xam sa wàllu euh, euh, euh, nenukaay yi nga xam ne moom mooy trompe nga xam ne moom la ñuy wax tromp loolu si wàllu nenukaay yooyu boo bu fekkee da nga ci am jafe-jafe boo naanee garab yi dana ko dana ko su fekkee ne yàlla dafa dogal tamit sa mbaax nekkul lu lu lu normal loo xam ne weer wi ci bés bi nga ko war a gis woo ko ci gis nga xam ne <laughs> tey nga gis ko la 5 ginnaaw suba nga gis ko la 4 loolu noonu nga xam ne dafa indi jafe-jafe ci si wàllu amam doom yàlla dogal na mën nañ koo dindi ak jigéen ñi nga xam ne seen biir dafay am lu mu deret lu mu deret boobu nga xam ne ñu ngi koy ooyee fibrom loolu noonu dañ koy faj ba mu set wecc ci jigéen ji nga xam ne daf ko daf koo dal ak jigéen ji nga xam ne dafa am li ñuy wax kyste ci wàllu yaramam loolu tamit am nañ ci saafara su baax a baax a baax a baax boo xam ne soo ko naanee rek dafay gaaw daal di dañ te it góor ñi am na ci ñoo xam ne ña wàll ñàkkum doom mi jigéen ñi di jàmbat am na ci ñoo xam ne si seen ay borom kër la nekk moo xam seen wàllu ndox dafa wàññeeku ñii nga xam ne seen wàllu ndox dafa am feebar bu ne ci ndox mi ak ñi nga xam ne seen wàllu waay yàlla yi ne ci suuf mooy ñaari doñ yooyu nga xam ne mooy tax nit ki mën a am ndox mën ñu ndox moomu noonu waay yooyu waay yàlla yooyu bu dafa am tawat du ne ci waay yàlla ba tax mënta am ndox moomu nga xam ne mooy tax sabab mooy sabab doom am nañ ci saafara soo xam ne nit ki su ñëwee incha allah bu ñu ko ko joxee rek ci diir ñaari semaine loolu mu teqali koog moom am na ci tubaab bi dañ koy wax euh, euh, li nga xam ne mooy bari ko sel bari ko sel googu nga xam ne tubaab bi moom lay wax ñun moom la ñuy wax ci wàllu waay yàlla yi nga xam ne mooy tax nit ki mën am mën nuyu googu kooku su fekkee yàlla dogal na ci moom mu naan ko incha allah dana teqali koog moom ba set wecc moom luy nga xam ne mooy wàllu pajum cosaan mi nga xam ne yàlla yàllaa ñu ko donnuloo it ñu góor góorlu ci góor góorlu goo xam ne àddina yëpp seede nañ ne man xam ne maay Cheikh Omar Diop liggéeyu pajam cosaan mi am na fu mu nekkoon am na fu fuñ ko indi am na fuñ ko yóbbu Euh, télévision yi daanaka min nañu rajo yi min nañu internet bi it min nañu ci wàllum paj mi fu nekk la nit di bàyyee ci àddina bi di ñëw ci ñun dañuy seet si ci wàllu pajum cosaan léegi pajum cosaan mi sax tubaab yi ñoo gën a itteewoo tubaab yee gën a itteewoo pajum cosaan mi moo tax nit ki ci fekkee ne yàlla dafa dogal mu nekk koo xam ne africain la nekk nit ku ñuul bu mu jëggaani am paj ci kenn na ko ñëw ci fajoo ko ci fajum cosaan bi man maa ko wax man Cheikh Omar Diop ndax li nga mën a am ci fajum cosaan fii mënoo koo am ci pajum tubaab bi tubaab bi mënuñu mënuñoo faj nit ku ñuul lañ mën mooy jox la ay ay garab yoo xam ne daf lay taneel wala ñu dagg sa biir wala ñu dagg sa cër génnee tawat di nekk ci yow nga teqali ko moom waaye bu dul loolu pajum cosaan moo xam ne lii daf koo danga nga koo doon nekk si ay waajur wala mu nekk lu la dab loolu boo naanee insha allah suñ ay garab da ngay teqali koog moom ba mu set wecc ci sa yaram loolu ñun xam nañ ñu ci ci réew mi xam nañ ñu ci bitim réew bitim réew lu mel ni Italie lu mel ni Amérique lu mel ni France lu mel ni Angleterre Espagne ak li nga xam ne mooy euh, euh, euh, Italie ak Espagne ak yooyu noonu tund woowu yépp ñoom xam nañ ci ci wàllu fajum cosaan képp koo xam ne am nga loolu ñu wax boo ñu ooyee mën nañ dimbalanteeg yow ba nga mën a jot suñu li nga xam ne mooy suñ ay garab fépp fu waay mën a nekk ci àddina bi rek muy Amérique fu mën a doon ci àddina bi rek incha allah boo jongo boo jokkoo ñun mën nañ laa dimbale ba nga mën a jot suñu ay garab téléphone bi moo nekk 77 78 162 64 64 numéro téléphone bi 78 la 162 64 64 wala nga woote ci 77 euh, soo ñu jotulee ci numéro boobu léegoo léeg mu fekk ñu nekk ci kurus. boo ñu jotalee nga woo ñu ci 77 557 55 27 boobu boo ñu ci ooyee 557 55 27 boo ñu ci ooyee incha allah dina am koo jot boo boo boo boo boo jokkoo ak moom mën nañ mën nañ laa wax waxtu bi muy féex pour nga mën a jokkoo ak man wala bu fekkee woo nga ma ci numéro bi la jotoo ma it nga baamtuwaat ko rek ci kanam incha allah da nga jotante ak man numéro bi am na whatsapp boo ma ci ooyee mën nga maa jot. incha allah wala nga oote ci ñaari numéro yooyu ma ci jotee nga oote ci 77 942 22 23 barab bi nag mu ngi nekk fii ci Dakar ci Sénégal ci cité Aline Sow golf boo ñëwee ba ci biir cité bi ci jumaa ji nga laajte villa 652 euh, boo ñëwee foofu incha allah boo laajtee kër Cheikh Omar Diop dinañ la ko wax ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërë ngeen jëf salaamaaleykum